saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 sur 24 gaaw leen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء غدر بلا ملك وفاز بالخلاء محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا لوسف سر الحلال محتاج سلسطان من السفاح asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Daara Ndiaye TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen anten medical allah waa ngeen ñëw fii nag fekk ñu ci antenne médicale bu jamaatu Ibadu Rahman antenne médicale bi nga xamante ne depuis euh, mën naa wax ni léegi fanweeri at ak benn mi ngi daw ci màggal gi macha allah seen yitte nekk rek jàppale askan wi ak jàppale njabootu sëñ Touba ci taalibe mi nga xamante ñu ngi fiy ci bépp tawat bu leen gaar ngir yombalal leen bu neex bu ak allah. antenne médicale jamaat Ibad Rahman nag ñu ngi ko taxawal depuis mille neuf cent nu koy waxee te soixante 93 waaw lañ ko taxawal mooy première antenne médicale bu jamaat Ibad Rahman man maa ngi ci bokk depuis 98 waaw yàlla dogal nag ren ma dellu siwaat fi incha allah ñëw rek ànd suñuy mbokk fajkat yi fi ne man maa ngi tudd Awa Ndoye waaye dama leen di jox après suñu docteur incha allah euh, Cheikh Ndiaye mu wax leen tuuti ban yitte la jamaat Ibad Rahman am ci biir antenne médical bu màggal Touba incha allah docteur. maa ngi tudd docteur Cheikh Ndiaye nekk médecin fii nii ci antenne médicale jamaatu Ibadou Rahman donc comme ni ko si sa waxee euh, jamaatu Ibadou Rahman yàgg nañoo am ay taxawaay ci màggal Touba ba ci sax yeneen këru diine yi màggal Touba dañ ko beral teer boo xam ne nii bu yaato yaatu la ndax non seulement dañuy def assistance médical mais aussi dañuy def assistance sociale donc duñ dem ci faj bi rek. dañuy faj dañuy waxtaan ak nit ñi dañ leen di génne dañ leen di def ay dañuy yiir dañuy def prévention lépp dañ koy def ci biir màggal Touba gi donc loolu moo fi tax a taxaw ci ci lëkkaloo nag ak waa région médicale muy la direction régionale de la santé di ci lëkkaloo également ak district bi ak mboolem ñi nga xam ñi ngi nekk fii di faj ci alentour bi yenn saa ñu am ay jafe-jafe wooñu ñun tamit yenn saa ñu am jafe-jafe woo donc faj bi dafa nekk donc li ñuy recevoir nag nekk na ay mag nekk na ay xale catégorie yëpp lañ fi lañ fi recevoir muy nekk ay handicapé ku ci nekk daal soo ñëwee fii incha allahu rabbi di nga ci gis donc sa sa sa sa bopp bu baax a baax baax ci faj bi nga xam ne ñu ngi koy def fii donc mu nekk loo nga xam ne ni lu am solo la donc ñu ciy woowaat euh, ñëpp ñoo nga xam ne ni xëy na war nañ ci a jàpp pour gën leen mën a dimbali incha allahu rabbi pour ñu mën def seen ne ni mooy euh, yeneen autorité médicale yi mu loo xam ne ñu ngi koy doxal depuis 1993 ñoom tam ñu ngi ñuy jàppale bu baax wax dëgg yàlla ci ay médicaments mais tamit dañ naan lu lu lu baax du doy te fas lu mu daw daw mën nañ ko gën a laabali ndax yenn saa yi ci liggéey bi tamit du ñàkk dinañ am ay jafe-jafe lu ci mel ni yenn saa yi yenn garab yi mën na manqué te dañ koy soxla pour mën a faj yenn maladie donc ñu leen woo di la gën a loxo pour que vraiment ñu gën ñu mën a teg loxo pour li nga xam ne moo ñu yëkkati muy liggéeyal Serigne Touba jaarale ko ci taalibe yi ñu mën ko mën a def ci anam ga mu gën a rafete ñun daal ñu leen ko ñaan baax mais nag moom suñu collaboration macha allah alhamdulilah amul dara loo xam ñagas na ñi ngi liggéey comme ni mu waree pour le bien-être des populations. asalaamaaleykum ñu kontaan si ñoom chaque année man ak ñoom la chaque année dinaa fi ñëw seet leen parce que seen benn waay bu fi liggéeyee sama waay la ma daan doon liggéey ak ñoom mais boobu ba ni saa yu mu fi ñëwee yokkute laa gis si ñoom ñoom daal koy gën a yokki moyen mu gën a baax parce que ñoom ñu laabir lañu ñu baax lañu da nga ñëw ñu accueillir la wax xool sa tension xool sa lépp lu man si yow daat koy def bind la ak kayit kon boog ñoo ngi kontaan si ñoom nan leen gën a dolli ay moyen ñu gën a góorgóorlu ñii ko leen dolli moyen ñu dem yal na yàlla fay. li ñuy def si bési sëñ Touba bi yàlla na ko sëñ Touba fay saa su ngeen di wërati xibaar bu gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp